Ok, bonjour à tous les internautes de Buzz.sn. Je vous rappelle que Yannick suivent c'est émission Carrefour des Stars. Donc euh, aujourd'hui, Carrefour des Stars reçoit un grand monsieur de la culture hip-hop. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Khalif Manglejar. Yeah, Djadjef jalis Delosiar. Et puis, waouh, di nous sommes internautes. Avec euh, le public hip-hop un peu partout dans le monde. Donc, one love, man, and big euh, wax un peu bon déjà buñu wax parcours bi day xaw dina compliqué fi lañuy fanane mais xamnañ ni yaay évoluer évolué benn groupe bu tudd Undershift. Undershift déjà jot ngeen proposé ben album euh, def ngay featuring également yu bëri sorti yu bëri car machallah yaay paré ben mixtape inshallah donc mixtape bu huit titres plus bonus track 9 titres donc wax un peu réalisation mixtape bill ak lan le la motiver pour nga proposer ce public public Undershift ak public hip hop bi. Euh, une mixtape. Euh, idée est déjà si xam nga The Chiffre depuis 2005. Euh, amuñu produit bu gën ci marché bi. appareil single yi def en 2009 euh, def nañu euh, Manoré mom lañu ñu nominé woon type de l'année ak euh, RFM. 2011 ñu def First Track mais à part lolu en fait liñu ñu en fait ci marché bi wul 2005 lañu ñu def produit. donc lolu paramètres yi bari woon c'est-à-dire parce que gaay légui léegi xam jot bi amatul ku si nekk yaa ngi affaire ben instant ñi voyager nañ ñi xam nga njaboot na len tout donc man ma fi euh, 100 ci biir showbiz. donc à part la musique je suis DJ en même tension commissaire au BSDA ça fait 8 ans. donc c'est euh, les li may yëngu musique lay donc euh, tant nañ temps bu produit donc je je me suis dit pourquoi pas me def produits produit comme moi ici euh, pour au moins maintenir idéologie de Ndéchifaay. ak turu Ndéchifaay ma je ko maintenir donc c'est là amee idée wu def produits produit. donc voilà c'est moo indi idée def mixtape justement donc côté motivation et également gis nañ ni sorti de notre groupe, c'est un groupe Ndéchifaay déjà ñeneen a ngi fa mais featuring yi Kalif la ñuy gën a contacter Kalif moo moo ëpp sorti ci ay featuring et cetera et cetera est-ce que aussi ça t'a pas motivé nga ne baa mu def benn benn affaire boo xam ne si Kalif quoi en fait d'une part parce que moi moi moi comme li le wax léegi comme man à 100 dans le milieu. euh, donc forcément ça veut dire que nous ñuy gën quoi. ok euh, aussi boobu ba léegi même lancé bi man et puis de continuer job bi. Okay. gars job donc quelque part doonul nekk juste Kalif donc je dois représenter Kalash. chronique kamikaze donc gars yëpp le leen représenter quelque part parce qu'il mange mhm. un indi mhm. donc euh, c'est vrai que soo seetloo 10 ans yu mujj yi mhm. euh gars yu bëri dañ may solliciter ci ay featuring. c'est-à-dire mhm. euh, ci ay album yu génn ba ci ay album yo xamantene ne au niveau international. Mhm. Euh, def na ci album Curse ben ben ben ben allemand la. Euh, donc y a aussi la mixtape de Under the Ground Nomad. studio depuis Maroc donc xam job def naa ay ay ay featuring yu bari donc quelque part lol aussi daf may motiver pour pourquoi pas c'est-à-dire il est l'heure que aussi man aussi may indi ben affaire bo xamantene ne la. parce que même on est ci bien au groupe euh, tu es obligé de respecter en fait couleur groupe bi. mais euh, dafa lo xamantene yow ça personnel. donc actuellement là je suis en train de une image bo donc c'est carrément calif donc euh, cette année on a un projet de faire deux produits. Mhm. une mixtape d'abord euh, qui doit sortir ce samedi 6. mais fin d'année aussi on a un projet de faire un album un album de 17 titres donc album bob c'est sera 100% Kalif mais mixtape bini c'est 70% Kalif bon des chiffres 30% Kalif. tu ah. comprends donc euh, mais produit bini ñuy ci fin d'année année 100% Kalif il vient yeneen affaire là quoi. ok donc euh, c'est c'est ton produit bi ngay waaj a Inch'Allah le 6 juin la wara sorti moi sortie officielle bi euh, production bi c'était comment production bi kan moo ko produire. autoproduction la wala am ben benn affaire bu nek ci quoi non en fait coproduction là avec ben ben structure bu fi nek ben label bu tudd Rock Team Music. ok nous avons ngi en MO6. donc c'est euh, booy la en fait depuis euh, ñoom temps rappeur donc et tout def entre temps euh, structure donc si nous contacté en fait premier produit bu la label bi un produit donc pourquoi pas donc nous ñu dans projet bi ko que disponible aussi musique fond quoi donc produit ça a été fait par euh, rock team music ak euh, un chiffres aussi quoi ok donc euh, avant ñuy wax si retombées parce que album est déjà génnagul mais xam Kalif dina dina jaay lu buri parce qu'il est respecté avant ñuy dugg si l'olu bon nous au fait producteur bi la bu à peu près millions Job avec Rock Team. c'est avant tout une famille parce que Rock Team je li ma nous euh, depuis que nous sommes rappeurs. donc c'est mm-hmm. ni ay début mën naa wax ne subir influence Bo boo venant du groupe Underchief ay donc euh, dañ doon dégloo album ba mu Underchief di xama donc euh, quelque part amna ben euh, relation bu ñu am boo xam na donc suñu ñëwé dañuy liggéeyandoo donc man j'ai un peu aussi comme je dirais je dirais pas défi mais comme mission aussi de jël label bobu yégal ko ci un niveau ñoom aussi ils ont comme comme comme défi de jël Kalif en tant que solo wala n'importe quel artiste bu nekk Underchief est-ce qu'il y a un commande job ak mom ba ba niveau donc ben travail de complicité la xam nga ku nekk dafay indi et puis ñu boole ko pour jéem pour jéem réussir benn affaire quoi. ok donc Kaliphil prépare une mixtape le 6 juin inshallah allah donc mi ngi koy jaayee 3000 francs lan nga fixé comme objectif sorti mixtape bi di nga jaay ba ñaata quoi. 50 000, 100 000, ouais, le, là, ce qui est sûr qu'actuellement, ni ni ni ni moi, honnêtement, parce mm. que il euh, y a des gens qui ont déplacé ou amené demain normalement de nous juger un short pour nous faire okay. une conférence de presse. Donc, euh, en fait, nous n'y a que musique. Ok de ce fait, moi, j'ai fait 10 ans de radio. J'ai fait Wolf 6 ans, j'ai fait un FM 4 ans. Mm -hmm. euh, ça fait 8 ans. Donc, il y a une musique. Donc, de ce fait, quand j'ai une opportunité pour moi, j'ai am par rapport à euh, marché avec jean okay. Donc, tel nous préparer le terrain, nous avons fait des produits. ce que Donc, de ce fait, actuellement, même région, nous avons fait des okay. produits. Donc, créer un site de vente avec jean okay. Mais ce qui est plus important, par exemple, euh, ce n'est pas la vente. Parce qu'actuellement, nous avons une réalité musique. Tu comprends mhm. Donc, euh, man, pour moi, ce qui les li gën solo euh, contenu album bi la c'est-à-dire message bi la contenu bi la parce que bon town bi c'est vraiment déplorable que su fekkee da ngay seetaan télé di déglu rajo yi di xol si luy xew ci town bi après yow tu te poses des questions tu vois mhm. un peu te nous tous on est quelque part responsable chacun ku nekk responsable donc euh, te nit ci li ngay job ci mhm. ngay jaamu yalla tamit quoi ku nekk war na mën contribuer indi dara sa di pour ñu jema a defaraat parce que actuellement ci perte de valeur yu yéme lañ nekk donc euh, moo tax cette direction mixtape bi euh, dama ñëw pour déjà dénoncer gars yi xam parce que hip hop bi légui dafa manquer écriture gars dañuy sagane écriture est-ce que euh, d'une part et d'autre part aussi perte de valeur yi am ci ci affaire yi donc li gëna am solo pour man objectif ci mixtape bi euh, du aspect pécunier juste mais en fait mais impact bon, en fait société bi. message bi ci nek xama euh, philosophie bi ci nek donc man euh, donc sama sama objectif ci côté boobu laa koy gën a quoi. ok donc concernant le plan de com de la mixtape euh, au 6 juin les génn 6 juin c'est presque une deux semaines lañ ci teg ñu woor. ñu ñu dugg ci weeru corps ban message nga bëgg lancer génnee juste mixtape bi moment wéru koor bi nu muy ñëwé ban message la waaw koor gi en fait affaire yu bari day xaw a dañuy xaw a stand by. côté spectacle côté donc voilà. donc euh, mixtape bi on a on a fait exprès de génnee ko avant koor gi. parce qu'on pouvait très bien bàyyi ba koor gi passé ñu génnee ko. mais dañ dañ ko dañ ko bëggoon a génne avant koor gi au moins ci biir koor gi gaay yi ko cons est-ce que y ngi commande gaay yi jël sen temps consommer ko exactement. Mhm. après koor gi légui suñu def par exemple euh, concert de lancement bi ñoom dañ comprendre parce que en fait produit le bo xamantene dafa laaj deglu ah. mhm. dafa laaj deglu c'est-à-dire du du dafa laaj deglu carrément. concentration nga tok deglu ko son par son euh, barre par barre nga cons donc euh, loolu ci quoi mais bir koor gi gars je pense que nañ am temps de album à bu après si nous comprendre direction bi fan ok si on parle d'écriture ici au Sénégal bu wax écriture ci hip hop ci ci rap sénégalais non def ñu de ce tour Kalif déjà gars yëpp jox nañ ko tour, que ce soit grand yi ay ñom khouman ay Daara Family PBS ñëpp jox nañ la tour. déjà gis nañ la gis nañ la anniversaire Daara Family 20 ans u Daara ji Family feulé na le euh, Grand Théâtre nga reprendre ben couplet Nanga lan la lay def le fait que nga reprendre ben couplet Ndongo ak est-ce que da nga mun am une fois influence du groupe Daraji euh, si effectivement parce que soit euh, soy euh, Daara et Daraji Daara PBS Pifras. Mhm. ñoom première génération hip hop fi Sénégal. ok tu comprends ñun ñoy deuxième génération hip hop. donc forcément dafay am impact bu première génération bi bàyyi ci deuxième génération bi. on le voyou non. est-ce qu'on en a parce que soo ñëw ci ben milieu ci ben game. Mhm. am ñoo fa fekk. que nga sentir ko ou pas ñom am na ben influence bu ñu bàyyi ci yow. Mhm. parce que ñom ñoo tax sax soy set la ñu bari dug ci hip mhm. donc man amé début ñu bari dañ ma doon jaawaat rek nongo parce que dañ duroon même flow yi même bindi tu vois parce que à l'époque je me rappelle daf ma jaralon ma dem jàngi alphabétisation pour jàng wolof. meun bind ak meun lire. juste pour am ben écriture bi daf ma ko je l'ai fait et puis euh, voilà donc ce matin eu ben instant d'arrêt d'une fête c'est 20 ans euh, non grand personne moi pour moi participer au spectacle donc loolu quelque part honneur parce que Dari dit quoi qu'on puisse dire c'est pas un groupe euh, c'est pas de n'importe quel groupe cest un groupe international à mhm. travers nous on respecte le mouvement hip-hop sénégalais mhm. partout dans le monde mhm. est-ce une commande donc euh, pour moi loolu déjà honneur là man ma ñëw euh, war a participer ci ans ba pour avoir reprendre aussi ben couplet boo xamante ne daara dit depuis yàgg donc c'est un honneur quoi ok justement donc nous avons dañuy am cadre écriture bataille donc c'est le ni yow bind teman macha allah bind bu taaru nga nga am macha allah donc euh, yàlla na la yàlla fal chat ci lol noonu. Mm. également et gis nañ aussi da ngay utiliser ay techniques d'écriture yoo xam ne dañ koy jang ci école bi par exemple school ngay jàngee ay allitération ay assonance ay rimes croisées déjà gars yi ñu ay name dropping punchline yo yep c'est des comparaisons et cetera et cetera ak les textes aussi gis nañ ni textes ñu tuddee apostrophe ay la métaphore désigner quelque chose indirectement personnifie.

Euh, euh, période ay ay télégraphe wala ay lettres wala genre affaire actuellement technologie permettre na nit je me dis que ne amatul alibi pour être ignorant. tu vois on a am nañu possibilité yëpp pour pour xam lu bari. Mm. ñun euh, suñu ay début bien vrai que jang nañ poésie mais juste poésie bi ngay jang école. Mm-hmm. lolu bon c'est c'est euh, bëriwul quoi c'est comme par exemple nit ko taxaw naan la jang na poésie dem bu soutenir ci bokul ak li ngay jang li ngay jang school c'est-à-dire amna ay quelques éléments yi ñu siy euh, su fekkente ne ci ci ci cadre hip hop là on a appris dans le tas comme comme comme tout le monde parce que ba ni ni may wax amul école de école hip hop fini Sénégal donc mm-hmm. am na ay quelques centres yo xamantene ne ñoo ngi encadré boy de leen former mm-hmm. mais donc euh, lo xamantene école xam euh, carrément au vrai sens du terme amu fi mm-hmm. donc on a appris dans le tas mais ak amul bi ñu ci musique suñu kumpa yamuloon fofu ok gëstu nañ un peu partout c'est-à-dire lire nañ ay bouquin gis nañ ay professeur dugg nañ ci net bi donc da ngay jàng. pour xam donc tey jii je me dis que ne technique yooyu euh, parce que y a deux quand même euh, te ñu bëri dañuy dañuy dañuy dañuy confondre loolu dafa am technique d'écriture ak technique d'arabe si waaw ñu bëri dañuy confondre loolu. technique d'écriture lolu poésie la parce que poésie moom mo jitu hip hop escoin na a ay technique d'écriture la ay altération ay genre rookie loolu technique d'écriture la mhm. mais technique de rap mooy technique yi nga rappeurs yi ñoom pour adapter scène à ay texte de musique ok tu vois des fois a ay technique d'écriture une technique de rap dañuy ok est-ce qu'on a donc y a des am en fait technique yi bëri parce que mhm. sooy au Sénégal il te parle de ay euh, juste net, ñoom ñoo gën a euh, next level punchline name dropping alors que bëri na c'est vrai c'est des centaines c'est vrai c'est vrai am na bëri na technique yo xamante pourtant gars yi nga koy use ni mais do deg ñu ko wax même tour yi ni ma la wax peut-être légui le tour yi fës mais depuis que le hip hop et hip hop ñoo ngi def ay punchline ñoo ngi def ay name dropping ñoo ngi def ah. ay ay next level mais xamuñu ko won quoi ok est-ce qu'on en a ok moo tax la dernière fois bi ñi def entretien maa ngi peut-être euh, euh, bugguma trop gars yi di di accentuer wu ci lolu di ci temps bari parce que voilà donc hip hop Sénégal def euh, li mu perte temps rek doyna na mais en fait actuellement moy li wax rek c'est-à-dire xam nga jàng école nga ñàkk jàng école euh, mën nga xam affaire noonu yëpp parce que mën nga ko gëstu fu ne yàlla studio am na yaati su fi nekk yoo xamante ne xam nañ bu baax li ñuy def. Mhm. bu joxe nga sànq exemple comme ay Ndongo c'est un gars qui maîtrise su muy def. ok c'est un commande y a des gars comme ay taf taf noonu noonu yaay kayit yi bëri nañ fi. ok les gens yi dégg y a l'internet y a les livres y a les bouquins donc ku bëgg a gëstu rek juste ci musique donc di nga ci am ay bagages quoi. yow xam nañ ni leader d'opinion nga ce ce kàddu mi ngi sore et tout donc yàgg naa la seetaan concert aussi ngay yëngal gay bu baax a baax a baax a baax euh, ngi Sénégal am alternance donc 2012 Macky Abdoulaye Wade jóge na fi Macky Sall toog déjà rek lolu yow nan nga ko nan nga ko ak à peu près bo doon def sumo bilan peut-être c'est trop dire mais non la ko mën waxé quoi c'est bilan depuis Macky ba mu togué fini ba tay 2012 ba 2000 2015 si point de vue Bobo, je pense que dans damay xool euh, on a jusqu'à photographier en fait vécu quotidien au Sénégalais. on a jusqu'à écouter nos rôles quoi. ah mais yow war nga xam dara. parce que t'es es journaliste de la rue. ouais je je sais mais <laughs> tu sais xam Sénégal déjà. ok euh, ñu bëri est-ce qu'il y a une am ay convictions ok est-ce qu'on a. Mhm. Euh,

à la limite d'un manque de respect envers population Okay. tu vois euh, Sénégal pour man naxariwul defar quoi. Mm -hmm. parce que n'a rien defar parce que fi dafa am ay base yo xamantene lolu soko le ko teelee verrouillé y aura pas de problème. ok yaa ngi dégg euh, par exemple d'une bi. Mm santé bi yaa ngi dégg éducation. donc yo Euh, je pense que soo ko priorité nga quoi parce que bilan ou Macky tey suñ ko euh, y a des trucs yu am négatif aussi. donc ça sera un bilan métissé quoi. mais légui bon reste à voir parce que soy un télé par exemple les opposants quand quand suñuy wax dinañ wax bo dugal sen bop wala soit yenn gars nek ci ci ci pouvoir mais politique dafa complexe. on n'a pas une bonne éducation politique par exemple Sénégal population Sénégal en euh, général. Mhm. c'est-à-dire qu'il day a pour rek des top ci wala euh, du genre. Mhm. mais je me dis que ne gouvernement bi Macky et son gouvernement. mais suñu toogee xol Sénégalais yi len ñom war nañ xam ndax si ça va ou ça ne va pas. war nañ ko xam. donc actuellement y a plein de gens yo xamantene dañuy ñaxtu. Euh, té man li gëna déplorable moy injustice loolu mun ma tolérer parce que je dit dis une chose la semaine dernière y a eu ay yenn agent au sénégalais yu ñew sama sama sama sama parce que dañu am ben ben affaire bu len metti ñu bëgg ma porter leen ko parce que dafa famille ñoo ils sont au nombre à peu près de 600 cent. est-ce que ok ñooñu ay vacataires lañ. yaa ngi mais du ñu ay contractuels yoo ok donc ça fait combien de temps ay années ñu fay liguer est-ce qu'on a mhm. donc euh, dem nañ ba nga xamantene suñu togué di revendiquer pour ñu insérer insérer parce que cest dire euh, mënuñ nek ci vacataire lu lu durée bobu noonu yëpp. des années am na amna def nañ ci ay années ñi dem nañ ba génn àdduna. Mhm. suñu bëggé ñu insérer leen léegi. Euh, gars yi defal len ay menaces ça à dire dañ di def ay ay ay ki ay ay ay nu mu tudd euh, ay GIE. Mhm. wala sinon ngeen signé lolu pour bok ci GIE wala sinon dañ len di dakh wala genre affaire donc amna litige bu si nekk boo xamante euh, je me dis que ne gouvernement Sénégal war na mën tok deglu déglu ñooñu déglu aussi ça veut dire personnel euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Sénélec ñu jéem trouver xol lan moy lan moy lan moy problème bi. d'accord donc mhm. récemment aussi gis nañ fi les les enseignants ok bloqué nañu c'est-à-dire système éducatif bi benn durée bu yag ak ñeneen ak ñeneen. donc euh, forcément donc il y' a problème même su fekkente ne des fois les gars yi dañuy amplifier mais il y' a problème donc loolu gouvernement war na si mën a taxaw euh, nu mu gën a jàmpee ñu def ko priorité pour pour pour faj loolu ñu dem ci kanam quoi. tey gis nañ ne aussi le Sénégal aussi euh, est malade de ses acquis sociaux de ses autorités politiques religieuses morales et cetera tey feebar boobu non lan moo ko mën par exemple on te parle de par exemple ay xaalis bu bu baaxul bu ñuy gis jàpp si ay kilife, ay ay yenn détails aussi dégradation des mœurs comprendre nga soxna yi également le leen neex def chaque jour nga dégg problème si chaque jour chaque jour chaque jour lan mooy saafara bi exact lii. ñii euh, docteur yi waron faja feebar wala nu mu demee non euh, waaw suñu doon xol ni feebar kay est-ce que ay fajkat amna sax. <laughs> <laughs> honnêtement ça, à dire mooy li wax sank xam nga une bonne éducation, une éducation, c'est-à-dire environnement de vie où, évolue la personne. Là. Juste le milieu scolaire ne, suffit pas, c'est-à-dire euh, cercle familial doyul. Donc, l'ensemble de okay. Je te pose une question. Non, ne dis pas une bonne éducation. Ce fait qu'Internet est si télé, le négatif, su taalee rajo lu négatif lay dégg su génnee ci mbedd bi ay terme ak ay accoutrement yu négatif lay gis donc partout fu mu teg bëtam ay affaire yu négatif lay nan nga bëggee kooku am éducation bu baax mënul nekk donc euh, qu'on se dise la vérité ça à dire y a plein de choses you gars yi war a mën wax comme li nga expliqué ne ay kilifa yu ñuy jàpp ci ay ci ay phobie ak genre affaire yooyu xëj na bii dafa fës mais lu fi la ok tu comprends lu fi yàgg Il y a plein de choses yoo xamante ne peut-être yàgg na fi mais nit ñi on n'en parle pas c'est-à-dire c'est c'est tout à fait naturel on n'en parle pas. après les day qui ñu koy ñu koy mais soo xoolee par exemple ci médias yi télé yi ñu bëri ñu di télé c'est-à-dire qu'ils dañuy des leçon de morale c'est des gens qui ont des ne dañu am ay antécédents. soit dañ ko jàpp ci viol wala ci vol wala je sais pas. wala duñu ay duñu ay modèle ok est-ce qu'on a okay. donc ñooñu suñu demee ba accaparer télé yi wala radio. Ils ont des leçons leçon de morale ils a éduquer boy donc il y a un problème quelque part. Okay. Que, un jour, je m'a invité à une émission où je suis invité à une émission où je suis invité à une 5 ans, 6 ans à faire, il y a un balak individuel à ce Une salle où je suis invité peut-être 1000 ou 2000 personnes. Et ça, je suis invité à une salle où 4 ans, je suis invité sur scène, je suis fait, je suis invité à une salle prix, tu l'encourages. Mais comme ça, même 20 ans, l'année, ça n'y a pas. Donc, quelque hein. part, tu vois qu'on est, qu est, qu est tous responsables. Ouais. Lors de nos défis, les grandes sociétés, nous avons sponsorisé.

série bu ci nek dina am ben homosexuel bu ci nekk. waaw yi dégg. Mm-hmm. dafay retaanlu ci série bi fay dem ba xa dafay neex finalement parce que day retaanlu psychologiquement ñoo accepter image bobu non c'est vrai donc les télé dañ participer. Nous participons en général. parce que nous avons modèle vraiment. Nous des émissions qui présentées à la télé des discours éduquer les enfants des émissions yu bidon. mais grande société c'est vrai c'est vrai est-ce que quelque part aussi public est formaté wuñu médiocrité xam cerveau humain ne serait-ce que fraction de seconde mm-hmm. c'est enregistré sa mémoire sans exception. tu comprends donc euh, du coup ce fait qu'un yow un yi cerveau. Mhm. li si négatif. Mhm. forcément a un impact ce sa c'est vrai ça Moi, mooy formatage bi ngay c'est vrai ben, peuple, ben, ben, ben, peuple ñu endoctriner ko. Mhm. parce que euh, pour dara. Nous, li ñu jàppee ay outils de jeu wala ay foyokaay c'est des outils de guerre que ce soit la télévision que ce soit yeneen outils de guerre parce qu'une télé ça te permet de créer un programme La population bi ni nga bëgg ñu xalaatee noonu la après selon programme bi c'est vrai ça tu comprends. Mhm. ñom dañ ci conscient motax sen programme bari déjà da nga gis yene syndicat yo xamante dañ leen di imposer loolu yene film yi da ci siy bind interdit au moins de 11 ans. Mhm. wala des programmes nangam nangam est-ce que yaa ngi mais Télé Sénégal do si gis ben programme bo xamné c'est local ñu bind si interdit au moins de 5 ans wala 7 ans wala 10 ans amul. non non mhm. amul quoi. c'est vrai est-ce que yaa ngi déjà ñun jàpp nañu télé def nañ ko outil de jeu. kay la euh, nit ñi dañ say tok lu leen neex lañ ci wax dañuy xëy di mbàdd suba ba ngone est-ce que yaa ngi donc ñun ñoo ngi faté nañ ni suñuy doom ñoo ñuy sétane ok donc ya ngi leen di endoctriner ya ngi dugalal ay ya ngi leen di def ay nit ñu bon. ok té sans autant sans garantie rendre compte. donc affaire yoy non yeb la mëna jox pas mal d'exemples yo yoo xamante ci ci côté boobu. si si parce que da ngay xol par exemple suñu ñëwé né le concours national si université yi. Mhm. ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy par exemple euh, premier meilleur étudiant de décennie bi ci dix ans yi. xam nga ñu ñëw jox ko bourse ak xawma lan ak lan kërëb kërëb. Mhm. à côté tu vois ben émission bu melni Oscar des vacances miss bi kese dañ koy jox un million jox ko bourse jox ko oto <laughs> mais quand même ñun dañ la ñuy promouvoir c'est la critère n'est-ce pas c'est vrai c'est vrai ça loolu loolu nag mooy am impact impact direct ci ci ci génération bi di Ok. xam nga ku juddu da ngay bëgg nekk ben, ben, ben, ben miss ku juddu boy bu góor bu juddu da ngay bëgg nekk mbër ku xam nga parce que tu vois que par même les grandes sociétés ñoo ngi injecté xaalis bu bari ci lamb ji mm. ñoo xam nga alors que les trucs yo xamantene réellement waroon ñu ko sponsoriser wala ñu tek sen tank duñ ko def parce que les sociétés ils sont pas là pour la population ils sont là pour ñom sen dembop sen sen sen bénéfice tu comprends Donc, mm. c'est déplorable quelque part. Donc, man, mon demain, tago, ma baile, calife. Donc, merci à tous les internautes. Euh, donc, yenengichi, buzz.sn, euh, dans Carrefour des Stars. Et Carrefour des Stars, donc, mingfi dalal ben danan, Khalif le, du groupe euh, Merci à tout le monde et on se retrouve très bientôt avec Benen Danan, Inch'Allah Rabi Yo, yo, Binny Neck cool. dañu jàng ba yeyi kayit dugg ci really pop toppandoo wu seeni kayit man next generation bi la ñu bëgg a educate ñu meditate ci many question ndax léegi mi ngi late foog nga toog get di no no ni nga wait foog nga def ci brain boy yi tekki nekkul rek state jàng bi ñu gëm ko school bi waruñu ko hate épithète jukki ci téere maam yi jàng ci ay bait naka ci pexe ndeke béy munoo ko nax ci lekkati kese ku bëgg di texe jege xëy munoo ko am ci app bu jege léegi town bi dafa salte léegi ñëpp a ngi xas sante ñii di saaga ñii di raak rayante roofoo génne paaka lu ñu tere doon benn tere gëm lenn tere kenn mere kenn deret bañ senn yow marxaban ban daanu nga dëpp te mar nga ban am nga gan xam nga kan war nga xameti kanay kan barke démb wane na tey ki la gën a bëgg la gën a mën a ray tey hay doy na sëkk da ngay dëkk ci dëkk bi bëgg fi tekki mu tëla mënuñu ci dëkk da xëy di wuti te doo am xëy di watetu doo xam butugu mbagg ba maketu kolobaan bëgg tukki te doo man iblis yawu teel te rëbbi te ren di tëddi te ku rabbi terrorisé ba rëbbi jóg leen te woote maytu fu ñuy noote gooto goote woote donte mbedd beenu njaboote dañoo sonn ci yuuxu yeewu leen léegi ñu toxu yeewi leen gëmoon raag ba dëkk bi naat xewal yi tuuru yes ku nekk na yar sa doom moom ci koom te bu ci mere kenn kenn bum la tere dem tem dëgg fenn dem ba jural la en yow listen yow ca soowu jant la bin ba wàcc sa penc ma ndogal ba wàcc na jaam ya njàqare këf na gox wa ndey ju nekk ngi léemoo ko teñ laayu mbind gu mu goob ndax sikkim bu sëkk su doon njiit si ket du doon mala ci gétt ëpp na tëdd bay gént lekk ba regg lay taay bu jekk rek tële nelaw ba were kekk banku ba nagam sagam sa tu bëggal a pël bay sàmmi nagam fajar teel ñu dajale jàmbaar seedoog saltige lingeer ceddoog njaatige di bëggee silaama yi gën a dëng bu ñu fees dell ki sëng tëstanu dànn ya doyal sëkk ak pënd dagg ya fenter lool as dogit am déet si diggu penc la ñu ma tànn saf ma jejj sas ma dànn ceddu rikk na saltige dëddu ki sës rëkk si njaati get. def sunu gangor naaj ba tollu sa digg ba waye kenn du tangor le war sa pénc ma ak askanu kumba jor ma jor kor leer la jor la xap sa càmmoñ ci lama ca nday jor xare ga dor jambaari jank tout tank bank sen tank lankay jongante xare bu amul ben araf kenn du janok sa morom baraf bakeni yi rat ni beref jàmbaar di ñat ñat ne ñett du ko tënk xel ma tukki sa njaxat mu won sa njompi di boomi dooma ak maq doom guddima ki ndonom wet xeeb sen xet gox wi waaw gox wi la ñu bëgg ndar gaajo ba lingeeri joy ba ñu rongo ñu yeah what's up you know one Love.